Idrissa Seck sera candidat à l'élection présidentielle de est-ce que réponse bi mën naa nekk question ni ma ko dama koy def question soog laa tontu lu simple est-ce que yow mi question bi mën ngaa xalaat élection présidentielle nekk Sénégal ex Idrissa Seck di dund dese bakkan am wér ak cawarte te du jaboo xalaat loolu wala xalaat loolu ah xalaatoo ko de est-ce xam nga kenn ku mën a xalaat loolu kenn rek ku ko mën a xalaat waaw léegi nag réponse bi gën a gàtt mooy waaw ñaareel ñaareel deuxième question deuxième question ndax Macky am na droit xam nga lu tax société am société li tax mu mën a am mooy dañuy am kuréel goo xam ni lu mu dogal nga ànd ca nga bañ caa ànd da nga ciy tënku bis bu ne nga dem états cour suprême ba génne décision boo xam ne ñu bari dañ naan lii ay ball poy ay ay yu ñàkk yu amul benn teguwaay la wante doo gis benn américain bu jëlul tam Sénégal benn kuréel mooy wax ku sañe ku sañu la bokk mooy conseil constitutionnel mais li boroom xam-xam yi wax te muy ay boroom xam-xam yoo xam ni seen xam-xam du xam-xamu caaxaan ku mel ni professeur Serigne Diop lu mu la wax ci constitution takkal téere fii ba Koulikoro fii ba Casablanca fii ba Johannesburg ku fiy jàngale droit constitutionnel laaj nga ko bii bis nga gàtt mu gàgganti la Serigne Diop nee na wala boog Serigne Diop nee na ma amul droit te amul benn porox ndol bu mu jaar pour am droit wax na ma ko loolu leer simple troisième question nga ne bilan bilan bi xam nga fii laa toog ma ne leen euh, man maa waxoon ni la vision de Macky Sall ne dépasse pas Diamniadio waaw léegi bu ma rombee Diamniadio romb Fatick romb Kaolack traversé boobu Gambie te daanuwuma ci ndox mi vision bi dépensé na jëm ñaari la du question tàkk c'est la vérité et bientôt je pourrais faire la même vers le nord traverser Rosso te duma fa fanaan samay légumes di nëb wala samay mango yi jóge Casamance di nëb loolu bilan la mais bilan bi li ma ci gën a neex mooy ndox mi ndox mi ak piste dafa am ay chasseurs libanais yoo xam ni rëbb rek mooy seen métier ma tase ak ñoom réserve animalière de Bandia ñuy waxtaan xamuñu man maay kan ñu ne ñoom yàgg nañoo rëbb ci àll bi mais ren bi ñuy rëbb li ñu fi gis ci ay forage ak ay tëli ak ay piste ak ay espace aménagé musuñu ko gis ci Sénégal électrification li ñu ci gis musuñu ko gis bi fi Wade nekkee électricité bi Senelec xuy kamaj lañ ko tuddewoon parce que man maa ko tuddewoon xuy kamaj bon mais léegi on a quand même de mégawatts Donc le bilan, il est excellent du point de vue matériel. Du point de vue immatériel, il peut être amélioré sur l'indépendance de la justice, sur la transparence des rapports de certains corps de contrôle, sur l'implication de la famille dans la gestion des affaires de l'État. Voilà. Mais globalement, c'est un excellent bilan. mais je peux faire mieux. dégg ngeen wëli comment Lalla Rasoul. Oui. Waaw. journaliste public SNTV. xanaa jataraa la yónni xanaa yaa ko yónni alors euh, li concerné Yankhoba Diattara personne au monde ne doute de sa loyauté à mes wante wante léeg-léeg day bëgg a dugg samay caaya wax na ma waxoo caaya mag nag boo ca duggee ah, am lu la ca fekk xam nga li mu def bu ko dencee faal defoon mooy toog fi Déthié Fall moom rek laa waxoon lii xew ci bi ñu waxtaanee ak Macky ba pare mais ma ne ko yow du ma la dugal ci gouvernement puisque yore nga ñaari poste yoo xam ni bu ma la fa jëlee yóbbu ci gouvernement bi réew mi da koy ñàkk te poste bu nekk faj na soxla député nga assemblée nationale ba lu nekk directeur technique waroon na nekk d'ailleurs directeur général bu NMA puisque xam-xamam may na ko mu ne ma d'accord ñibbi këram am lu changé mu am honnêteté itam puisque ku honnête man ñi ma yar ñëpp yàlla moo ma leen tànnal dañuy am xam-xam dañuy yaru dañuy am fit su dee ci la bokk bii mu ñëwee ne ma effectivement waxtaan na ak soxna si waxtaan na ak frère yi mais ñoom gisewuñu ko noonu ma ne ko mais c'est normal sa jabar sa ndam rek la bëgg man bu doon présidence de la république dañ koy jënd di joxe wala nga lijjanti ko nday pend da koy lijjanti jox C'est normal qu'elle soit de ton côté, mais ne l'écoute pas sur ce sujet-là. Donne-lui raison, mais toi, ne dis plus rien. Parce que il ne faut jamais parler sous l'emprise de la passion ou de la colère. ñu nekk ci loolu mu dem assemblée nationale alors que waxoon naa ko bul mu wax léegi moom moo nekkoon premier vice-président du parti d'ailleurs il était vice-président exclusif le seul le seul vice-président du parti donc bu waxee dañu naan maa wax te waxuma loo li mu wax pour wane ni waxuma ma jële ko fa mu toog ba tax bu waxee ñu defe ni maa wax bu ma ko fa jëlee dina dinañu xam ni waxuma noonu laa def ma jële ko fa mag ñu jóg di dox diggante bi ma ne leen mais c'est très simple na delluwaat assemblée nationale wax ne lii mu waxoon njuumte la affaire bi jeex mais xam ngeen euh, Iblis dafa bari doole Iblis dafa dem seeti yonent yàlla Muusa ne ko yow nee nañu yow yaa mën a wax ak yàlla man nag ba ma xuloog yàlla ba léegi yonent yi fii jaar bari nañu kenn mësta dox diggante bi pour defare ñu te maa ngi bëgg dee yow dox ci bopp wax ci Iblis ne ko ah wax dëgg euh, Muusa ne ko ah yow day wax dëgg yàlla comme bëgg ngaa tuub nag moom wax dëgg yàlla danaa ci def defi jéego Moussa dem seeti yàlla ne ko ah sa noon sa sa jaam bi de di ibliis te defoon njuumte lu rëy loolu ñaan na ma ma dox ci diggante bi yàlla ne ko mais amul problème moom dama ko waxoon na sujootal aadama mu bañ ma dàq ko lii rekk la nee ko aadama nga fële ñu suul na fa dem ca bàmmeel ba rek yaxya sax xam naa ni newatu fa mais bu ko su jootalee rek ñu juboo Moussa kontaan ne réussir na mission bi waaxu waaxu mu dëgër ñëw ci Iblis ne ko affaire bi sotti na mu ne ko ah mu ne ko sotti na borom bi daal nee na la mu la santoon nga bañ rek ngeen jote jotewu leen leneen léegi boo delloo ca bàmmeel ba nga sujjóot rek affaire bi jeex iblis ne ko eh eh yow yow yow yow yow yow li nga may wax lu doon yow kii ba muy bees ñu ne ma sujjóotal ko ma bañ léegi mu dem ba fënax ma koy sujjóotal waaye dem naa waay <laughs> donc c'est tout Yankhoba je l'ai sanctionné il a dit il considère que j'ai fauté j'accepte la sanction C'est ça le premier message qu'il m'est écrit. Et quand il m'a envoyé ce message, j'ai euh, Macky Sall, euh, on en a parlé, je lui ai dit la faute porte seulement sur la politique. Elle n'a rien à voir avec le gouvernement. Au contraire, au gouvernement, il nous a ramené des coupes d'Afrique. Donc, je ne vais pas le sanctionner dans son travail gouvernemental, mais je le sanctionne pour que les gens comprennent qu'il n'y a qu'une seule autorité dans le parti qui a le pouvoir de nommer aux emplois civils. On n'a pas encore militaire, peut-être après 2024. Il faut que je m'entraîne, quoi. <laughs> Donc, je, je vais enlever. Au niveau du gouvernement, il fait un excellent travail, comme Ali Saleh Diop. Pourquoi voulez-vous que je le sanctionne? Et d'ailleurs, les Thiessois là, ce, ce que je leur ai reproché, les militants du parti, hein, quand j'ai mis Yankhoba Diattara, des des gens se sont battus et que waay ah Diattara mi mu ñu bëgg a imposer lu mu koy et bu réussir mooy nekk patron parti bi fii duñu ko nangu et xeex ba yàlwaan ma daanu ñoo ko yàqal seen bopp simplement puisque seen vision ñoom mu ngi yem ci na jatara échec mais bi jatara échecgee ñu déglu rajo bi doon déglu ne jatara ñàkk na jatara nangam nangam mais dégguñu loolu li ñu dégg mooy Idrissa a été hué dans son bureau de vote il a perdu il a ceci ñu ñëw daw si seet si ma ne ma ñun ñii ñoo organiser loolu pour démontrer que Diakhara mënalu la dara ñun ñoo am pouvoir ma ne leen mais yéen li ngeen doon bëgg a démontrer rey ngeen ma faf parce que mooy mooy mooy ndaw sa rek ndaw sa ak wujjam ndaw si dafa nekk ñaareel nekk xale aawo bi ñëw ne sama nijaay moom li mu gën a bëgg mooy buy lekk cere nga koy dóor tàpparka naan ko wannal waaye wannal comme xale la xamu ci dara mu yore tàpparka bi ñëw tegal góor gi cere yi goor gi di lekk mu téye tàpparka bi di dóor rek naan ko wannal waaye wannal góor gi xaw naa de ma ne leen vous m'avez la même chose vous luttez contre Diafara et vous tapez sur moi et c'est vous qui perdez puisque man bi ma leen di jox Thiès on avait les trois communes on avait la ville on avait le département ngeen caaxaane ko ba mu daanu ngeen di ñëw vous n'êtes plus rien je reprends moi-même la coordination et je vais voir si les Thiessois vont m'accompagner ou pas c'est très simple si je suis candidat on va voir les résultats c'est tout si les Thiessois me disent on n'est plus avec toi j'arrête la politique je l'avais dit mais ils ne me l'ont pas encore dit waaw bu ngeen ma ko waxee daal moom ma ne abal leen